إنني أثني على خير منعم ألا إنني أثني على خير منهم ولا أستكي للخلق من فقد أنهم ألا إنني أثني على غير منهم ولا أستكي للخلق من فقد أنهم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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar fu ngeen ba di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi waaye di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Amadul Basir suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba dim ci liggéeyu borom tubaab bi yëpp mu def ko ni ko bëggee te ànd ko mu taalibe yi al karim salli wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farihu bi azilam daayi وبشر بها وجميع أيبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين عطاب للمملكة الأوداني باغنا ذني من الشيطان عتاب للمملكة الأوداني باغنا ذني من الشيطان عتاب للمملكة noonu la ñuy siyaaree bu baax ak di ñaanal Cheikh Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou waaye di ñaanal mbooleem ahlu xasida gépp فتامت زمات الفتاو للمصطفى زمات المفتاو بان لكل من له صلاو أن امتدى المنتخى فلاو آيات ومدى وكتب من أوها إليه ذا البرايا والزمن نبينا المايما كلها mbokk yi bu ngeen gisee fii nu nekk tey ñu ngi ci jaalibatu maraaxib di bërëbu xasaayit yi nga xam ne moom la ñuy waajalee di ko waajalee màggalu xasaayit yi te Serigne satu mbakke nekk ca bopp ba ñu war ko amal le 7 décembre 2024. bu ngeen gisee nag mbokk yi tey mboolem comité bi ci njiital Serigne Abo Mbacke moom Serigne Cheikh Say moom Serigne bu ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ak mbooleem comité bi yëpp tey jii di altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre ñu wàcc ci terrain bi nag ak ci kër xaside gi ak mboolem li ko wër ngir waajtaay wi nga xam ne moom la ñu war a amal muy mag màggalu ko xaside yi bu ngeen gisee nag mbokk yi booba ba tey ci tàkkusaan jotee kilifa yi ñëw nañ ànd koog mbooleem ku di technicien moo xam technicien sonorisation technicien écran ba ci technicien électricité ñoom yëpp daje nañ fi ngir def li nga xam ne mooy sur le terrain ngir mën a xool ndaka la ñuy installé lépp bu ngeen gisee alentour bi yëpp mooy kër xaside gi nga xam ne fi lañ war a def góor yàlla yi fi lañ war a nekk ñaari mbaar nekk fi muy mbaarum ma Massamba ak mbaarum Cheikh Abdoul Ahad ak wet gële nga xam ne mooy mbaarum Soxna Aïssatou Mbacké Gaawaan ci biir kër gi nag danañ fi def ay baas 1000 mètres ci lu toll ci juróom-ñaari 1000 mètres wala juróom-benn yoo xam ne war nañ koo installé ci biir kër gi boole ko mbaar yi fi nekkoon te foofu yëpp war a am li nga xam ne mooy mooy ci liggéey bi bu ñu génnee ci biti nag ci fi nga xam ne mooy wetuk soowu gi danañ gis foofu tamit euh, bayaal bu yaatu boo xam ne incha allahu rabbi foofu ñu war fa baas lu toll ci ñeenti baas yi 1000 yi ak yeneen baas yoo xam ne dina ci topp bu ngeen ñëwee ci wet gi nga xam ne nag mooy wetu nday jooru këru xasaayid yi di ngeen gis foofu tamit euh, bayaal bu yaatu boo xam ne fi lañ waajal waañ yi nga xam ne fi la ñuy defee li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi yëpp ci loolu nag mbokk yi bu ngeen gisee tali bi nga xam ne moo bàyyi bàyyikoo ci tëri route de Belel bi ñëw ba ci kër xasida gi euh, foofu nag mbooleem euh, police gendarme danañ ko lijjanti ba euh, circulation bi nga xam ne mooy dem ak dikkub oto yi nga xam ne am nañ fi accès benn du ci am jafe ak fi nga xam ne mooy oto kilifa yi mën a yegg si ba ci biir ak oto yi nga xam ne ñoom war a yor liggéey bi Eh, kon loolu mooy taxawaay bi nga xam ne am na tey fii ci jaalibatu maraaxib ci njiital Serigne Abo Mbacké ñu gis noonu mbooleem eh, comité bi yëpp ñëw nañ teew ak commission bu mu ci mën di doon ci biir comité bi ñu teew ngir def liggéey boobu nga xam ne mooy liggéey bi mujj ci réglage yi ngir fas yéene xam lenn lu ci nekk bâche fan la war a tege eh, sonorisation fan la war a yegg si écran fan la war a yegg ak mbooleem lu aju ci yooyu yëpp min rabbi bi rabbi fan xaada ibadati liman arbutuna wa xaadani bil muntaqal mutuna rasuluna ahmadu xad ara bi rabbi kulli fadara lil xaada man xaadat fi liyal ikam bil muntaqa la si ajjaloo lakam subhaana man faddala xayri mursali ahmadina la jami rusuli abal ilaaw kawna sayyidal wara mislal wara wa qatada wa nawwara salaamu rabbina ardi wa salaatu ala allati la nat ala allati la nat bihi alqulaatu salaamu rabbina ardi wa salaatu ala allati la nat bihi alqulaatu فاز الظلام والمداد والجسد بخدمة لمن كفاني من أثر يسر الله بخدمة المكين كل في راد كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة بخدمة المختار في اللسان صلاة في الأرض العظيم والسلام على النبي المنتقى الماء الملام كنت بربي مع الماء سنين عبادة ثوابا مع اللنين غفر لربي ما تقدم وما تاخر بماء قدما تاب علي توبة قد قتلت ربي ويا بالنبي بل قتلت سكرت على النبي ما incha allahu rabbi kon mbokk yi e, naan yu yaatu yi ngeen gis lépp ngir màggal bis bi nga xam ni mooy bisu màggalu ko xasaayid yi fii ci jaalibatu maraxib ci mboolem ahlu xasida yëpp waaye ci njiital Serigne Amsatu Mbakke moom Serigne Soaybu ginnaaw bi nu àndee kilifa yi nag ba wër kër gi fépp fu dal war a nekk fu baas war a nekk fu kaabul war a yegg lépp nag ginnaaw bi tombeek timis di bëgg a jot ci lañ daal di dugg nag ci biir kër gi nga xam ne mooy kër sëriñ bi di daara ji nga xam ne foofu danañ ko baas euh, ci wet yëpp ba ca sowu ba ca wetu keesu Fawzeyni lépp danañ ko amal ay bâche ngir euh, lépp ngir gan yi ak euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw rek te bis bi rek tax xala بنبي درا إلى سواي قائدا للبرا دابت حياتي بنبي المنتقى وانغاد لما وتوزو التقى نويت شكر مالك يا النبي رحمة كل أخر وأجنبي غاد لي الإله ما بذات كوني عبد الخديم والستار رنيت من جاتني بكوني عبدا الله خديم غير كوني واجاني القرآن بالحلاوة وخاتني خير الواتلاوة حديث خير الخلق لي أنيث بعد كتاب من هو الأنيث جادني الواب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القرآن سرا وجبا أن لا يزال بلا مرتجبا ado gida baradiyan han fili radiyan yama yatasazzuli ado gida baradiyan han multili radiyan yama yatasazzuli zalala sayyidina muhammadin مسلما عليه غير سمد جاد لي الجامع بالمنافي مستغنيا بي عن المضافي ما ويا بمن مانع نفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق تتميم من قبض مني فردا على الذي بي دفعت القرا تاب فؤادي بالتوجه جزا ربي لي فيما كتبت رجزا توجه لي من الجميل تهلية الباغي بلا خمول ملكني المخني عن الملوك بي وبالماء عن السلوك xatamani laahu alal xudaami bil muntaxal musabbital axdaami xatamani laahu alal xudaami bil muntaxal musabbital axdaami xusnul mawaayibi bi xayri kasbi bal bil ilaahi wa ilaa wasbi xusnul mawaayiba bi xayri kasbi bal bil ilaahi wa ilaa wasbi maddaliyal baaqi jamiilu maddadaa بالمصطفى الذي لساني صددا نبينا أحمد زادي لله بكفاني الله در كل لا جرت له منذ خفت بالخلام جرت له منذ قامت عقد بالخلام وخات لما قربا كل ملام جرت له من ساق بالخلام وغادر ما خدمها كل ملام من علي بالمنى المنان وبالنبي تسولي الجنان من علي بسفا الديان وبالنبي بارقني النسيان قلوب لله لي قد أقبلت بجاه ما يملئها وقد جلت أمداه غير العالمين رجت من عيوب نفسها خرجت محمد سائر مطير مطير من يتلى ويندس نبينا باتنا المقدس مطير من يتلى ويندس نسامة إلي سرا كليتي كفى الأذى وسرا عبادتي توحيد ربي والشنا على الذي ذاق لخير الوصنا تسليم من جلاني المثال ginnaaw bi nag bi waxtu timis jotee ci la kilifa yi nag daal di taxawal joxe waxtu biñ jullee timis ba noppi nag ñu daal di tënk def benn euh, réunion bu ndaw boo xam ne euh, tënk liñ jote gis ci yan plan d'action lañ mën a teg ba am li bëgg kon loolu mooy li nga xam ne doon nañ ko amal tey incha allahu rabbi dinañ dikkaat ak yéen ci beneen tomb ci beneen yaatal ci leneen li nga xam ne mooy liggéey bi nuy ñaanal Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou mu yàgg fi lool te ànd ak wér suran lana wa bururan lana wajal haati alqasidati mimma lam yasbax ila misliha wajxalha linasimiha an makaarihi daarayni wa an mafasidihima junnatan wajxalha لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة آمين يا رب العالمين wansur alaya barakaati qawlika faatu bi a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul